ba tey dañuy sant yàlla bu baax ba nga xamee ni tey ñoo ngi organiser CFA bi. di wax ni du woon lu yomb trop ci Mbacke parce que ba pandémie bi tàmbalee Mbacke xëy na nekkoon na zone boo xam ni zone bu xawoon day waar la. ba ñu bëri dañoo yaakaar ni sax ni xëy na lu ñu sumboon ñu ci mën a génn mais yàlla taxawoon nañu. ba am nañ ci jàmm donc loolu bu amee nag day fekk ñëpp jàpp nañ ci muy muy euh, autorité administrative yi di collectivité territoriale di parents d'élèves yi di syndicats yi. donc ñëpp ci jàpp ba nga xam ne am nañu résultat tey nag yàlla def na ñoo ngi organiser CFE bi nga xam ne forme de couronnement la donc booy xool tey ci Mbàkke am nañu 7109 candidats maanaam juróom-ñaari junni ak téeméer ak juróom-ñeenti candidats yu composé ci candidats yooyu booy jël 4483 ñooy ay jigéen maanaam ñeenti junni ak ñeent téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ay jigéen lañu maanaam suñ ko doon xayma mooy téeméer boo jël juróom fukk yi juróom benn fukk ak ñett ay jigéen lañu donc loolu tamit euh, kii bu am solo la maintenant pour euh, seen ñu def leen ci condition yu baax dañ leen tas ci fanweeri centre ak ñaar fukki centre ak juróomi ñaa ngi nekk ci arrondissement Naam te boo koy xool ci Touba daanaka la ñuy wax booy xool fukk ak ñett ñoo ngi nekk ci commune Mbacké ñaar nekk ci arrondissement bu Kayel ñaar nekk ci arrondissement bu Taïf donc ren noonu lañ ko doxalee maintenant par rapport a nag feebar bi ni mu doxee ni moo tax dañoo insister woon pour que xale yi ñëw di def bañ am benn jafe-jafe moo tax ñu ne nañu fexe ba nga xam ni lu autorité sanitaire yi digle woon maanaam waa kër docteur lu ñu digle woon nañu sàmmonteeg moom ba nga xam ne xale yi dañu am benn jafe ci seen liggéey moo tax ñu ni xale yi décomposé nañu am distanciation sociale maanaam xale bu nekk benn table lay am donc loolu dañ ko def mu nekk loo xam ne dañ ko biral ci département bi yëpp beneen bi mooy ñu ni protocole sanitaire bi maanaam ñu fexe ba nga xam ne xale yi daañu am lép li nga waal moo xam ne mooy gel mooy lave-mains ku nekk ñu jox la masque wala soo am soo amee soo ñëw nga indi masque soo ñëwul tamit joxoon nañu ñëpp ay masques yi responsable ay masques ku ñëwul ñu mën la jox masque. te loolu ba ñu ñëwee gis nañu ni loolu respecté nañ ko maanaam xale balaa ñu dugg am nañ thermoflash ñu xool seen yaram ndax tàngul ak yooyu beneen bi mooy ñu raxas seen loxo ñu defal leen gel. ba pare ba ñu duggee ku nekk toog sa table. donc pour dire que conditions yooyu aussi fexe nañu ba réaliser ko ba incha allah ñoo ngi am yaakaar ni fii ak lii di jeex yàlla dañuy defal jàmm ñuy ñaan nag jàmm boobu wéy ba suñu examen yëpp jeex mooy fii ak fin septembre maanaam ñu dem ba fii ak BFM beeg yëpp ñu mën ko tàmbalee ci bisimilah rahmaani rahim mën ci génn ci alhamdulilah rabbil alamin